que euh, comme nu ñuy wax ci olof kenn moomul kenn wante lu leer ba leer comme nu ñuy wax ci olof euh, ku ku dem ñu reer sa ginnaaw euh, ndaam nekkoon chef de l'opposition ba mu demee ci majorité présidentielle boobu la nekk foofu léegi nag mënuñu tere kenn mu wax ne moom mooy chef mais chef de opposition euh, ça ne se décrète pas yàgg na ko wax moom ci boppam donc loolu ay fait la mais loolu du lu ci am solo lu ci am solo moom mooy comme nu ma waxee tey opposition bi ñaari mbir la ñu war a fexe bu ci njëkk moom mooy ñu défendre intégrité wu euh, union bu am tey union sacrée bi union sacrée bi maa ngi ko doon wax sax hmm. dafa am double tour de force premièrement mooy dañu fexe ba dajale ñaari couleur yi nga xam ne bokkuñu. muy société civile ak euh, way politique yi muy société politique bi mais également ñu dajale ay pàcc opposition yi nga xam ne moo suñu toog autour d'une même table donc bu ñu demee ba am loolu war na ñu fexe ñaari mbir maanaam dara warta jóge ci majorité présidentielle du appel du dialogue du nomination gouvernement élargi li nga xam ne mën na entaché ou entériné en tout cas unité boobu. mais aussi war ñu fexe bëgg opposition bi nañu ko taxawalee noonu ñu sàmm ko ba kenn du ci dugg pour tas tey bu bëggoon dugg nag ci F24 moom Idrissa Seck. mais kooku F24 ñooy apprécier mais am nañu règlement intérieur am na nañu charte le moment venu peut-être euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci plénière bi dinañu statuer mais man suma position laa joxe. sa position mooy doo ko accueillir ci F24. non position bi ma jàpp tey moom mooy xeex bi ci boppam euh, ñëpp am nañ ci place. mais en tout cas tey ku ci nekk war nañu seet sa jaar-jaar ak fi nga xam ne euh, moom nga féete woon Sénégalais yi ci weer yi ak ci at yi passé parce que man mii di wax yéen ñu ñëpp ci 2019 euh, dañu jàppale ki nga xam ne moo nekkoon opposant bi nga xam ne jàppoon nañ ne moom moo mënoon a jàmmarloo ak Macky Sall mais gis nañ foofu mbir mi mujjee gis nañ aussi wax yi ci génn loolu nag comme li ñuy wax ci olof ku lu ñuul rey sa maam ku ndomi rey sa maam boo ñuul daw. pour euh, dire yow personnellement man ci lu ma jàpp moom mhm. mooy. Ah, tey opposition bi lu mu toogee. tey euh, nañu fexe sàmm dynamique boobu. maanaam buñ ci rax dara. maanaam keneen du duggaat. man non ñeneen man ba ma ba ma ba ma paree signé charte bi ci laa ne. que maa ngi encouragé parti politique yi association syndicats yi ñu rejoindre dynamique bi nga xam ne mooy force vive de la nation mais luñ ciy teg moom mooy bu ñu booloo bu ñu booloo ak n'importe qui parce que dañu war a sàmm li nga wax moo leerul maître c'est-à-dire n'importe ma wax dafa leer li la nday fa li ma wax ah. c'est-à-dire muy moom muy keneen ci nga xam ne jàpp nañ ne en tout cas euh, dafay nekkoon ci Macky Sall ba mbir mi jege si mu bëgg dugg ci opposition. mais jàpp loolu loolu loolu dal na Aminata Touré waaw hmm? comme ni ko Fatou waxee. no man sama position laa lay jox. Aminata Touré ba mu jëwee ba mu yegsee ba mu hmm. yegsee ci boppam moom ci ñi insufflé en tout cas ci ñu gënoon a jàpp pour en tout cas F24 bi euh, mën a antu mën a am solo euh, def nañ ay réunion yu bëri ensemble jouru charte bi. nekk na ci moom lu mu wone en tout cas tey moom mooy pas-pas bu mat sëkk. et puis lu mu mos di bañ. moom mooy troisième mandat discours am varié wu ci. ñun gis nañ ñi nga xam ne ba nu duggee commencé nañ en tout cas di même bu ñu ko waxul seen i ñoñ di ko wax ne sa waay mën na am ñetteeli mandat. bu ñu ñëwee teg benn plateforme ponk bu ci jëkk moom mooy article 27 dañu ko war a sàmm kenn ki nga xam ne yoroon na discours contraire bi. du ñëw di ko rax parce que. mais justement maître maître lan la mm-hmm. f di peser sur la balance euh, ba xëy na ni ngeen ko yaakaaree mën a éconduire le président de la République ci mu bañ a laaj troisième candidature. déjà acte bi ngeen njëkk a posé réponse bi je pense mooy sorti ci Korité bi. parce que li mu wax mooy et que li ñëpp gis mooy il maintient son ni ni non ni oui alors je pense que ne également war nañu mën a évaluer euh, lan la euh, front boobu di mën a peser pour xeex bi mu sumb. Euh, sur le principe ci euh, ña euh, ñàkk présenté wu président Macky Sall ci troisième candidature ndax di ko antu front boobu dana peser lu bëri lu hmm. déterminant ci weer yi di ñëw hmm. et que boobu du dara lu dul peuple bi nga xam ne moo taxawoon temm 2012 ne ñetteeli mandat fii dañu ko fiy dàq hmm. ñépp manku ci ànd ci peuple boobu ba sànq ci suba génnul Sénégal. peuple boobu malgré les divergences moo remobilisé wu ne lu ñu bañaloon Ablaye Wade duñ ko nangul Macky Sall d'autant plus que on sera plus intransigeant avec Macky Sall. que ci ñun la bokkoon di xeex. ma ci yokkaat leneen li nga xam ne ça va m'amener encore peut-être beaucoup plus intransigeant ma nekkoon avocat wu Mamadou Diop mu génn àdduna ma gis. naqar bi nga xam ne moom la famille am tiis bi ak jafe-jafe yu ñu dund et kooku dara taxul bu génn àdduna parce que tout simplement leaders yi dañu ñëw gëmloo leen ni fii ci Sénégal nit waru fi laaj waru fi am ñetteeli mandat mais ci ay actes yi di posé la ay démarches. ay activités yi ngeen di mën a parce que coordonnateur yi plateforme yi taxawee ba léegi. non a ngi yéen a ngi nelaw de. non non non nelawuñu plateforme bi. Mm. peut-être boo invité Mamadou Mbodj wala monsieur Sané. Mm. dana la wax lu leer. plateforme bi mm. agenda bu gudd ci ay weer yu bëri. ñoom dañ ko détaillé peut-être ils auront l'occasion de vous parce que sont beaucoup plus man membre laa rek. ci biir ñoom ñooy war a wax ci turu kuréel yi. mais lu ma la ci mën a wax moom mooy le 12 mai. annoncé nañ benn marche sur le plan national. et que marche boobu leader yépp danañ ci teew. et que boobu mooy nekk premier test grandeur nature. et que bu loolu passé F24 bi dañu ko nara ñoom commencé nañ déjà implanté ko ci diaspora bi. nga am ay marche ak ay manifestations simultanées biir Sénégal et en même temps à l'étranger et que ci département bu nekk ci Sénégal. dana am beneen aussi comité bi nga xam ne mooy représenté F24 bi donc voilà. programme bu par rapport à 2011 euh, F24 bi euh, soo ko comparé rek M23 2011 am na différence. parce que M23 hmm. dafa euh, capitaliser woon lépp luy force vive yoo xam ne dañu contrôle régime en place mais F24 bi da ngeen di dem à rang dispersé ndax F24 à côté y a le parti démocratique bokkul ci M24. Hmm. Hmm. y aussi le cas Idrissa Seck bi nga xam ne ku mel ni yow buñ ko déggee buggu leen ko accueillir ci foofu kon vous partez en rang dispersé. est-ce que du diminuer seen force. du rend dispersé parce que élection yi passé wane na ku nekk lu muy pesé. parce que une plateforme sans le PDS moom. Euh, euh, non euh, ma di fàttali nii 2012 aussi PDS boo yoroon pouvoir bi 2011 <laughs> 2012. Hmm. et que dynamique bi dafa changé. Hmm. xam moo ci changé moom mooy ñaari mbir. moom mooy maturation intellectuelle bu am au niveau des Sénégalais. mbirum ñetteeli mandat fii. dafa nekk li nga xam ne ci at yi passé fukki at yi passé daf fi sédimenté maanaam am na ñi nga xam ne élection yi 2019 soxlu leen woon mhm. mais ba ñu déggee ne sawaay day jëm waxu bala sax da koy def mais day jëm pour am troisième mandat ñooñu dañu dellu si ci langue bi mhm. mais aussi tey boo xoolee électorat bi eh, yokku na Euh, tey parti politique yi man mii di wax ak yéen ndaam maa ngi woon ci acteurs yi nekkuma woon chef de parti même nekkoon naa directeur de campagne yu nit ci biir élection yooyu euh, ñeneen aussi parti yu bees donc dafa am benn mutation bi nga xam ne société bi dafa changé donc mën nañu jàpp ni tey Euh, de li nga xam ne mooy ay PDS yu absent wala ñeneen day rééquilibrer parce que am na ñu bëri ñu nga xam ne ñu nga woon ci biti dugg ñu woon ci langue politique bi politique mosu leen a yitteel mais tey ñoom dañu gis réew mi pour ñu soppikoo maanaam foog ñu xeex système bi nga xam ne moo fi nekk. loolu moo tax ñu jàpp ni tey. et que vous aurez l'occasion de le en tout cas que mobilisation bi nga xam ne moo nar am dana weesu ci dayoo. mobilisation bi nga xam ne moom la Sénégal.